gannaaw bañ leen beddee sa limu ndongo ya war a amal l'examen premier semestre sa faculté de droit bu université Saint Anta Diop ñoom ndongo ya ñu sanctionné woon ab xiifal la ñu fësalee seen nakar ñun kenn xamuñu ci violence ci acte de vandalisme moo tax boobu ba léegi ñu ngi utiliser dialogue discussion négociation mais comme de mujjul fenn te bientôt ñu tëj université bi te am ay ndaw yu bëri topp suñu ginnaaw parce que ñu ñu sanctionné su fekkoon 25 la jàppal ni 20 yëpp ay étudiants première année la te loolu day xaw a métti torop nga ñëw université ren ñu dàq dàqal pour deux ans. bu ñu commencé suñu grève de la bi ba ci guddi gi am na ci ñoo xamante ne dañoo am yeneen feebar yoo xam permettre leen pour ñuy xiif donc ñooñu ñu ci bëri ñaar ci ñoom ñu évacuer leen bu ñu demee franchement médecins yi nekk service médical jël nañ leen en charge toppatoo nañ leen loo war ci ñoom def nañ ko ba tey ñi ngi ñi ngi tane bu baax man mii di wax ak yow dem naa fa huit sànq la génn jël nañ ma en charge boole nañ ma nak avec un médecin vraiment qualifié. nelaw nelaw na xawma ma lu ci bëri numu démé mais buma yéwo dal daal sentir xaw amat touti force pour mën rejoindre rat sama camarade fi mais jusque là amagul kenn ci ñun ko xamanteni dem nga fofu génn lek ay waxtu rek gannaaw ba mu sa bërëb fajukaay yi mom nongoli ñakum taxaw bu yenn si autorité yi don na lu mu ñaawlu. gisaguñu médiateur de l'université gisaguñu doyen bu fi tek tankam gisaguñu professeur bu bokku sayes bi fi ñew recteur demb jaar na fi bu mu wàccee ci suba ci daan nañu romb de gauche à droite mais bu mu wàccee tamit jaar na fi donc waxtaan ak ñun waaye boobu tamit man laa ko gëj a gis xaw ma ndax sama ginnaaw dafay jaaraat ou pas mais à part loolu amul beneen autorité boo xamante ni nii tey mbir bi ñor na la nga jàpp ni ah c'est la vie des étudiants qui qui est en jeu donc euh, ma sol sama daal la ñëw fi loolu amagul. li nga xam ne moo di xeex wi ñu tàmbalee étudiants yi ñu sanctionné daanaka weetuñu si gannaaw yenn si seen ay naataangoo yi sàkku si kilifa yi ñu xoolaat ndogal yi ñu jël. nekkul loo xam ne lu ñu leen yéene la parce que suñu sañoon tey étudiants yi nga xam ne ñoo nekk fii nii tey nga xam ne amuñu possibilité pour dem jàngi amatuñu possibilité pour defi examen euh, ñu mën a def seen ay examen mën a continuer seen jàng. ba nga xam ne seen parents yi nga xam ne am nañu yaakaar si ñoom ñu mën a dem ba pare seen jàng bi fii nii ba dem teral leen donc lii nii su dalee seen kaw ñun ñu nekk ay ndongo daara comme ñoom li ñuy mën a def rek mooy ñëw ànd ak ñoom si xeex bi bokk ak ñoom naqar bi bokk ak ñoom tiis bi. damay compatir te damay dem dama ciy dem jusqu'au parce que am na ci ñoo xamante ne tey jii ñoo ngi ci biir mën naa ne euh, man maa leen dugal ci syndicalisme kon tey jii ñoom ñii bu ñu demee ba dara dal leen noo yoon la tey jii ma taxawu leen bu ma leen taxawul rek. du ma gor fii léegi autorité bi newul baal na leen ah décidé gu ma lekk moom dëgg neex yàlla moom nañ ma évacuer sax nag moom mais même bu ñu ma évacuer sax dinaa ñëwaat parce que tey jii solidari dama ne damaa solidaire ci ñoom kon damay dem jusqu'au bout. juum nañ rëccu nañ te njikko ñaan rek mu ñëwaat si décision xam bi nga xam ne dina leen mën a jéegal si moo ko mënee waxee noonu nga xam ne dinañ mën a demaat continuer waat seen ay seen jàng. di la dàq ay ñaari at ba ci juróomi at.